si bu njëkk muy teertu président Macky Sall ci ñëwam si Touba lu ñeel wàllu màggal gi soxna Mame Khary Mbacké moom Serigne Mourtada ratewu ko ndaxte wane na boppam si mobilisation bu am solo comme ni mu ko waxee woon noonee la ko defee fii si siège am bi nekk si Touba Palen mbooloo mu takku ñoo fa maasee ñëw am na si ay jeunes ay mag di xaar président Macky Sall ñaari waxtu laata muy ñëw fii nag fees na del ay collaborateur am yi koy jàppale si wàllu politique nekk si réglage yu mujj yi ku si mel nii ni Mamadou Diène Gueye général Pape ñas bi nga xamante ni moo jiitee jeunesse yu Touba ak ñoom Medoune juuf waa jeunesse féminine maanaam daal mboolem gox si Touba mu doon ay secteur am ñëpp teew nañu ci barab bii cortège bi bàyyeekoo autoroute Ila Touba président Macky Sall bi mu ñëwee ba fii taxawandi gis mbooloo mi ñoom nag ñu présenté seen bopp ci nii loole attiré loolu njiitu réew mi ci gàttandu bi soxna maam Xari Mbàkke amal ko ci ñëwam bii si Touba mbégte feeñ si kanamu président Macky Sall mu taxaw saafonte ak groupe bi mbooloo mi kontaan loolu si taxawaayam laataa nag ñu koy gunge mu dem kër Serigne Touba Serigne Cheikh Bassirou Abdou Khadre Mbacké moo ko recevoir président Macky Sall fas yéene taseel xalif général des Mourides indi ziaram si màggal gi waxtaan ak moom également si réew mi fa mu toll sonn Mame Khary Mbacké joxe rendez-vous si kanam ni kat mbëbët di mooy présidentiel ni mu ko mobiliser mi am ndam si dëkk bu tedd bii